yéen a ngi déglu VA FM rajo bu jiitu ci digital fii ci Tëngéej li si yéene kaay ak Mbaye Dione dal leen ak jàmm defaraat leen toogaay yi jamono yi nag coow li lenn la waaj mi menn la muy màggal ak Touba gi ubbil yéene kaay bi di l'observateur Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides yàlla fi yàgg tawet moom nag jël na ay matukaay ci màggal gi comme ni mu ko defe woon daaw rek ci jamonoy mbas mi moom Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu ngi digal askan wi rek ñu respecté mesure de barrière yi kuy ñëw na nga takk sa masque te tamit bu ñu fàtte gel yi moom Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides bind na ay lettre ci këru diine yi nekk ci biir réew mi nee na leen nañu wàññi nit ñay nekk ci délégation yi ndax dañoo nekk ci jamonoy mbas mi kii di Abdoulaye Diop di porte parole comité d'organisation ba moom mu ngay xam le ne cérémonie officielle bu ren bi kenn du fa dajale mbooloo ku nekk rek toogal fa nga nekk seetaan ko ndax dinañ ko def en direct ci télévision yi moom Abdoulaye Diop mu ngi xam le ne ba tey ngir wattande ku ñàkk ndox ci màggal gi rek moo tax yokk nañu ñaari mbàndi ndox buy def bu nekk 6000 mètres bu ndox yéene kaay bi di ñu xamal ne ginnaaw ba président Macky Sall demee ci Touba ci samedi ji ñu weesu kii Kajoor moom démb dem na ca Touba rek ziyaari xalif général des Mourides waa groupe Futurs Médias bu Youssou Ndour ñoom tamit démb def nañu ab délégation rek dem ziyaari ji foofee ca Touba waaye ñii waa Sen TV moom taluñu lenn ci jamono yi ndax njàq rek tiis ubbil yéenekaay bi di lii Quotidien groupe des médias bu Bougane Gueye moom nag dañoo bloqué ay compte bancaire am El Hadji Gabou Sarr bokk ca conseil d'administration bu des médias moom mu ngay xam ne ne waa impôt Sénégal ñoy xex groupe D-Médias ndax ci début 2020 la ñu njëkk couper coupé signalu Sen TV ndax né rek dañuy publicité xéssal ñu démat ba octobre 2020 wa RTP menacé Sen TV né dañuy coupé signalam ci manifestation mars 2021 yi wa général ci boppam coupé waat signalu Sen TV rek ngir bëgg lu neex président Macky Sall waye mom El Hadji Gabou Sar mu ngay xam ne ne bi yoon duñu ko bayyi mu jall dinañ jamarlo ak ñom ba mu saf sap. ubbil yéene kay bi di source a Abdou Karim Gueye xurum xaq mom nak dal na ci kaw Ousmane Sonko ci conférence de presse bu Y'en a marre boobee mu demoon moom Abdou Karim Gueye nitu dëgg nee na Ousmane Sonko yoon na mu dem ca conférence de presse bu Y'en a marre waaye na yem rek ci jàppale Y'en a marre waaye warta défendre kii di kilifa ak Simon ndax ñoom sax seetuñu ca mbir ma moom Abdou Karim Gueye xurum xàq mu ngi xamal Ousmane Sonko nekk ko askan wuy doyloo te nga bëgg a nekk président de la république ëllëg war ngaa xoolaat bu baax a baax ni ngay doxale ñu dem ci wàllu tàggat yaram ubbil yéenekaay bi di stade sunu juróomi gaynde yi di Sadio Mané Bamba Dieng Idrissa Gana Gueye Kalidou Koulibaly ak ak Ismaïla Sarr jamono yi nag ñoom ñu ngay toj Europe seeni tur ràññee nañ ko lool ci football ci diiwaanu Europe rawatina ci Ligue des champions yi ubbil yéene kaay bi di sunu làmb mu xëy di samp laaj ne ndax li Yékini def ci làmb kii di Reug Reug mën na koo def ci làmb ci diiwaanu Sénégal kii di Malick Thiandoum tontu ca laaj ba nee na kii di Reug Reug mën na def li Yékini def waaye fokk mu liggéeyaat bu baax a baax kii di Zallo nee na Reug Reug mën na koo def ndax mu ngi ci yoon wu baax ci wàllu làmb kii di Ibrahima moom nee na dina jafe lool ngir Reug Reug yegg fa Yaxya Jóob Yékini yeggoon ci wàllu làmb jërë ngeen jëf